Fuuta googu lenn ci ñoom te ma gëm ñi ni ñu ëpp ci ñoom la ndax bu dematu woon noonu duñu soxla yëpp ay kaari kaari kaar fii Ndakaaru di leen jox ku nekk vingt mille francs pour ñu dem di feesal ay accueil kon ma gëm ni li ëpp ci samay mbokk futanke tey ñoom ñoo taxaw wane ni Fuuta lañ ko xamee woon xamee ko woon waalo xamee ko woon Siin xaween ko woon Balaw Bawol xaween ko woon euh, euh, Saalum xamee ko woon Casamance la ñu woon Sénégal muy jomm fulla fayda fit bëgg lu baax bañ tappale loola ma nga fuuta tey te tey la fa gën a nekk waa fuuta googu taxaw wane ni ñoom ñooy les dignes héritiers ñoom ñooy ay sëtu dëgg dëgg dëgg Thierno Souleymane Baal nga xam ne ñëpp xam nañ ko ci liggéey bu rafet bi mu defoon ci li indi la révolution au Fouta te it mooy koo xam ne ay jàngaleem bu ko Macky Sall appliqué woon lii ko dal du ko dal li mu jàngale woon ci ni ñu war a yoree nguur maa ngi invité sénégalais bi ñu liiraat ko li mu jàngale woon ci ni ñu war a nguur bu ko Macky Sall defoon lii du ko dal tey ba mu doon lompo politique le président le plus impopulaire de tous les temps le plus rejeté par les Sénégalais jël alalu mbooloo séddoo kook yaag say mbokk jaay réew mi jaay doole ku wax nga dóor force ne maa fiy toog par force suñ ma tànneeg suñ ma tànnul loolu yëpp Thierno Souleymane Baal bind na ko bu ko toppoon lii du ko fekk kon waa Fouta Tamp yooyu wane nañ ni ñoom ñooy les dignes héritiers de Thierno Souleymane Baal wan nañ ni ñoom ñooy dëgg dëgg dëgg setu El Hadj Omar Foutiyou Tall wan nañ dëgg dëgg ni ñoom ñoom ñooy setu almaami Abdel Kader kan wane nañ ko kon ñun ñépp di sénégalais waruñu seetaan ñooña ñépp gis nañ leen dal dañoo war a am suñu solidarité entière dañu war a am suñu Euh, euh, suñu suñu suñu jàppale ci bépp fànn bu ñu leen di jàppale tey bokk na ci li yàq réew mi mooy ñi jàpp ni li fi nekk du dëgg yëpp war a xeex léeg-léeg dañuy tombe ci benn piège mooy kenn ku ne ragal na ñu ne suñ ma gisee ak Masamba dañ naan moom moo ne sama gannaaw moom a ngemb te moo ne ñooñu ñuy sóoraale ñoom ñoom amuñu ci kersa boobu de ña nga ànd ak ñi ñu war a àndal ñëpp ci yàq ak séddoo réew mi ak jaay réew mi man de xamuma waa Fuuta Tampi musuma dajeek ñoom musuma waxtaan ak ñoom waaye naw naa leen félicité naa leen te pare naa pour dajeek ñoom ba cëg mbir kàmm nag du lu may nëbb ngir intérêt réew mi di wax nag ni dañu lancé ñoom dañu confirmer bokk li nga xam ne lancé woon na déjà ci mois de mars bi mooy cette révolution populaire sitoyen républicain boo xam ne dafa ne dootuñu bàyyi Macky Sall mu nekkee ci ni mu nekkee ci biir réew mi moo tax damay laaj dama naan concept bi ñu war a lancer sax tey mooy senegal tàmpi du Fuuta tampi li xew Fuuta moo xew senegal oriental moo xew Casamance moo xew euh, euh, Sine moo xew Saalum moo xew Bawol moo xew Ndakaaru Njaay gii na ñépp jëlandoo senegal tampi buñ ko essayé soppi sax naa dañuy def beneen langue tampi bi la ñuy baax moo cay ne boo demee Casamance muy Casamance tampi boo demee Sénégal oriental muy Sénégal oriental tampi soo ñëwee Ndakaaru muy Ndakaaru tampi loolu mooy concept bu ama am solo boo xam ne dañ ko war a lancer ndax fépp a tampi ci réew mi université yi tampi Saalum tampi Bawol tampi Sénégal oriental tampi diaspora sax tampi lan moo baax ci réew mi lan lañ ma mën a ni lii ma nga ma ngay dox ci réew mi ba pare waa ji toog fii ne kenn du ko wax ku wax mu xoggale ku funki di jaay maa maa mën a mer ku bëgg a mën a mer dëgg-dëgg da ngay xëy rek éclater loolu la ñuy xamee ni mën nga mer moo tax ñu leen di apporter suñu solidarité boo xam ne amul fu mu yem di ko apporter it président Bougane ba Dany mi nga xam ne attaqué nañ cortège am démb loolu dama koy wax waa opposition bi yëpp di ko wax sénégalais yëpp gis nga boroom yar mu yor ab yatam ku ne ku sëqat mu dóor ku jàpp ni man mun naa toog sama coin parce que ñëwagul ci man kële lay dóor bu yóbboo nga xam ni su paree ci kooku ci yow la ñëw waratuñoo nangu kenn ci senegal ñu jaay ko doole xoqatal ko wala ñu ne moom Macky Sall am na sañ-sañu def ay activité am ak suñu alalu réew waaye keneen amul sañ-sañu def activité am fii ci réew mi loolu daf jeex na ci senegal li xew Fuuta nag ñun ñëpp a ko gisandoo defe naa su dee am na projection sax bu ñu mën a def li xew Fuuta ñun ñëpp a ko gisandoo fu ne nag jaar nañ fa pour mu bañ a fës ci senegal waaye vingt unième siècle bii ku foog ni mën ngaa fexe ba verrouiller information parce que am na peut-être ay ay ay moyens yoo xam ne mun nga koo tëjee fenn gis nga tey réseau sociaux yi moo tax mu ciy bëgg a rey boppam réseaux sociaux yi li mu am ci suivi kenn da ko am lu xew Fuuta benn benn amateur yor euh, euh, téléphone am filmer ko dugal ci Facebook balaa ñu naan deux heures de temps deux millions de vues mun na cee am kay tey kenn mënul vérifier information boo maîtriser lenn tam ba jàpp ni bloqué naa fii bu doon loolu am na ñoo xam ne tey du ñu exister du ñu exister may woo ndawu Sénégal nag nañu continuer ci noonu lu am rek nañ ko jël ba pare nañ ko tasaare ba mu egg fi mu war a yegg yépp waaye li am am Fuuta doy na waar mooy amul benn réew ci àdduna réew bu normal réew bu normal ci àdduna boo xam ne l'institution présidentielle présidence institution la moo tax ñu aar ko aar a aar ba léeg su nit waxee sax ñu woo article quatre-vingt institution boobu sécurité mënul nekk ci ay loxo milice privé loolu amul fenn ci àdduna loolu de ñu ngi koy doog a gis nga jël institution bu ne ni présidence de la république daa di jël sécurité am kaaraangeem nga ne léegi damay dem recruter ay nervi yoo xam ne amuñu benn responsabilité vis-à-vis de l'état du Sénégal ne leen nag yow yaay assurer kaaraange président de la république état de su eggee foofu mooy état amatul nërmelu état mënul weesu loolu président de la république en fonction bu dem recruter benn armée de Banyamulenge taxaw sa kaw oto gis sa milice privée di attaquer ay sénégalais yoo xam ne defuñu benn tort lu dul sa échec politique économique et social lañ ñëw taxaw fàttali la ko ñu leen di dóor sa kanam nga taxaw sa oto di jubilé loolu mi ngi doog a am ci àdduna guléet ah man de mosuma koo gis. peut-être ci jamono dictature yu njëkk ya daan na am loolu mbokk yi lu garaaw a garaaw la lu ñu mënut a nangu la waaye ñu war cee am ay jàngat ñu war cee am ay jàngat bi ci njëkk mooy dafa confirmer li ñëpp doon wax bi ñu génnee ci événement mars yi moom dafa woo ay ministre am ñu yooxu dëkk bi yépp daal di def seen soi-disant nuñ ko tuddee sax mémorandum nee nañu ñun ñooy terroristes yi ñun ñoo fi indi ay forces occultes mooy ay ay ay uh, ay samba yoo xam ne dañ leen a recruter fay leen pour ñu taal réew mi ñu ne ñun ñoo taal réew mi ñun ñoo reylu nit ñi bañ leen tontoo dañ leen ne xale bu am ñaari at sax ci Sénégal xam na ne li ngeen di wax ni waxu ko daanu si saret la ñépp xam nañ ni yéen yéen a def mbir mi